Jungle. gi tey ren dafa tombe ci li ñuy wax contexte waxtu wu xat mooy wér di gi nga xam ne suñ borom du ko wàcce ci kaw jamono te moo xam la tax mu def ko ndax yàlla kenn du ko laaj lu tax waaye nag neen la ci Serigne tubaa tontoon ca pes ba ci njaarim rek lay wax ndax nee na Serigne Touba bi taalibe ñëwee di ko wax ci pest bi Serigne tubaa dana leen mbindeefum yàlla la suñ borom mi ko fi wàcce moo xam tax mu wàcc ko fi waaye waxtu ko jeexalee mu jeex nee na ñu itam nañ ko jàppe noonu ndax Serigne bi ko dafa xëy ci njaarim bis dajale taalibe yëpp xam wax xamal leen di leen suñ boroom de. xamal na ma ne jàngoro ji mu fi wàccoon bis nekkee jël bis nekk tey jëlee ko fi ay fan rek mu daal tàggoo te xam ngeen ne ci biir yëf ya am na bis tubaab bi ñëw boo pesti bi metti na lool te xam ngeen pesti moo gën a gaaw gën a garaaw jàngoor ji xew ci àdduna si ren ndax ku mbasa dal dañ lay ber génne la boo faatoo sax pour ñu sang la dana jafe Serigne Touba nag ku mas a faatu ci taalibe yi te yàlla def mu mu yóbbu la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 ndax da ngeen yaakaar ne lu ma soob rek soob na yàlla ñu ne ko waaw Mbàkke mu ne mu lu soob yàlla rek soob na ma ndax ab jàmm balaa suñ borom nangu ak njaamam lépp lu yàlla dogal ci moom da koy neex kon Serigne Touba nañ xam fa mu nekkoon ci biir loolu itam na suñu xel dal danaa ci dellusiwaat li war a tax suñu xel dal kon Cheikh Mouhamadou Mountakha wax na ne mu ngi soññ taalibe bi yépp ñu góorgóorlu nag ci.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 ulul amri minkum mooy kenn ku ne la lay yilif ci fànn googu mooy sa ulul amri ba ca si mooy fasalu ahla zikri in kuntum la taalamun loolu itam xam-xamu médecine di caatab bi nee na kon li nga xam ne wàllu docteur yi santaane nañ ko ci lu ñu war a wattandiku te la ci jiitu mooy masque yi nga xam ne santaane na ko na ko taalibe yëpp maase ci di ko def góorgóorlu ci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 naan ku ko def gudd fan ku ko def naa nga mucc ci nangam ba mu xàmmee ba nëgë ni mosu ko def dafa jël léppam jooyal ko ci yàlla jël léppam jooyal ko Sëriñ Tuubaa mosee jëfandikoo dara lu weesu alxuraan ak xasida ak wirdu maxuus ak ak ak ak ak tudd yàlla kon kene foofa xam ngeen ne rëgalu jàngoro kon bu ngeen gisee moom di ko def day won nit ñi aw yoon kon nee na mi ngi koy digga taalibe Sëriñ Tuubaa